di leen jaajëfal ci bés bu tedd bi di leen ñaanal jàmm ak wér-gu-yaram ak yokkute ci bépp fànn di dellu si seq ak yéen waxtaan ci tolluwaayu réew mi rawatina lépp li nga xam ne mi ngi jëm ci suñu diggante ak nguuru Sénégal yéen ñëpp déggoon ngeen ni suñu parti Pastef ak nawleem yi mu ànd ak dañu fas yéene jàppale suñu candidature dañoo jàppoon bésu ëllëg samedi pour def li ñuy wax ci tubaab cérémonie d'investiture mooy organiser benn ndaje boo xam ne gannaaw bu ñu tabbee seen candidat dañ koy xamale ak sénégalais yi mu doon ndaje boo xam ne ndaje waxtaan la waaye ndaje euh, jukki lenn la ci suñu gis-gis ak suñu xalaatin mu naroon doon ndaje bu rëy ndax xam ngeen ni Pastef yàlla boole nañoo ak askanu senegal def ñu ci xolu sénégalais yi ba suñu woote musuta tuuti mu doon ndaje boo xam ne ci ñu ko doon organiser jàppoon nañ ni moo naroon doon ndaje gi gën a rëy ci li ñu mësa a organiser ba ñuy Pastef ba léegi ndax xam ngeen nii li ñu mujjee organisé teg ngeen ci seen bët ndaje googu nag lañu xëy démb gouverneuru ndakaaru génneeb bax bataaxal gannaaw bu préfet yi seen bopp génnee ñoom ay bataaxal ne tere nañu ndaje googu dinaa ci dellusi waaye balaa muy dugg ci loolu danaa gërëm sénégalais yëpp ci kóolute gi ñu am ci ñun ndax laata sama parti di ma investir Sénégal yi seen bopp ñooñu njëkk a investir ndax foo toll ak foo euh, dugg ci Sénégal di déglu waxtaan yi ci réseaux sociaux yi di déglu waxtaan ci média yi di déglu waxtaan yi ci place publique yi wax ji genn dong la mooy kenn xalaatul élection am Sénégal te suñu jëmm ji bokku ci kon loolu confiance la boo xam ne ëpp na weesu na suñu parti dong kon ñu ngi gërëm sénégalais ci kóolute boobu di leen ci sant laata suñu parti di ñu investir am na ay kuréel ci politique bi ñii di ay parti politique ñii day mouvement citoyen yoo xam ne waxtaan waxtaanuñu sax ak ñun ñoo jóg rek dem def seen daje waxtaan ne ñun lañuy tàbb ñu doon seen candidat ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant waaye bu ñëwee ci parti bi it am na fu ñu jaarale mbir mi ni ko charte parti bi tërale mooy képp kuy membre ci parti bi amoon nga sañ-sañ nekk candidat ñu ubbi candidature yi département Sénégal yépp ak yu nekk ci diaspora bi ñu ne leen kenn ku nekk na seet ci département am ndax am na ay candidat ak ñoom ban candidat lañu proposé waaye bu ñu dajalee loolu yépp professeur Ngouda Mboup ak haute autorité de régulation du parti ak ñi muy liggéeyal bi ñu dajalee loolu lépp li mu firndeel mooy kàddu gi benn la kàddu bi benn la mooy parti bi benn candidat la tabb mooy Ousmane Sonko ñu ciy gërëmit waa parti bi ndax dañoo nekk ak suñuy nawle gënuñu leen ëpp ñu leen jàng ëpp ñu leen xam-xam du alal guñ leen ëppale kon bu loolu yëpp dajee ñu jël seen kóolute jëmale ko ci ñun dañuy gërëm dellu sant yàlla d'abord gërëm leen yéen ñi ci seen confiance waaye wax leen ni seen kóolute boobu ilaa yow mi diin bu soobee ki bind du kenn koo xam ne dina toog ba matt baaram wu cax ne am naa lu ma lu ma ci regretté muy ci biir parti bi muy fi ñu dëgmal mooy bu ñu yàlla dénkee réew mi du kenn koo xam ne dina toog ba mën ci am déception bu loolu weesoo nag mbokk yi aaye bii nga xam ne gouverneur tere na ko suñu manifestation bi dafa dugg rek ci jaay doole gi nga xam ne ki ñu dénk réew mi moo ngi koy jëflanteeg ñun depuis ay ati at te Sénégal yëpp teg ci seen bët ndax investiture boo xam ne ab stade lañu dem jëli stade boo xam ne dafa tëju nga ne trouble à l'ordre public xam nga ne da ngay caaxaan investiture boo xam ne semaine bu nekk suñuy nawle ci politique def seen investiture weekend bee ñu jóge rek samedi am na ko def investiture dimanche am na ko def investiture kenn terew ko ko ñoom ñii bu ñu tàbbee seen candidature ba noppi dañuy dem defi seen investiture lan moo waral tey ñu ne Pastef du def investiture te ku am dégg-dégg ba liir communiqué gouverneur bi li mu wax ëpp na loolu de gouverneur dafa ne Pastef dootu fi def activité fii ci senegal te gouverneur dañ koy bindal rek ne ko signal mu signé ndax gouverneuru Ndakaaru Alhassane Sall xam naa ko bu baax maag moom ñoo bokk promotion ENAM ñoo def ñaari at xam naa lu mu sañ ak lu mu sañut xam naa lu mu mën ak lu mu mënut xam naa ban façon nit la waaye bu ñu nee gouverneur dégg leen président de la république nga xam ne tey ayam jeex na mu war a dem bàyyi ñu ci jàmm nga xam ni tey président parti politique la comme ni ma ko doone li ko firndeel fan yi yépp li gën a fës ci li ngeen dégg ci moom politique la jëm waaye du du du mbirum suba ba ngoon jot ma ngay dajale palais ay militangam nga xam ne suñu palais de la république la te lii firnde ni lii moo ko digle dem ba palais de la république dajale ay militant am waxuñu fa lu jëm ci réew mi waxuñu fa li jëm ci état lu dul mu nekk foofu naan Ousmane Sonko warul def investiture mu mel ni moom mooy conseil constitutionnel warul nekk candidat te loolu dinaa ci dellu si siwaat kon provocation weesuwut lii muy énième provocation nag te dinaa ci dellusi si li mu wax te sos te tàmm nañ ñu sosal justice daf ñuy sosal gouverneur daf ñuy sosal préfet daf ñuy sosal ndax li gouverneur wax ci communiqué bi moom rek ko dégg ci Sénégal ba mu daj naam wax naa ci sama interview France 24 te dinaa ko feddaliwaat tey ne bu dee Macky Sall dogg na ni day tere suñu candidature élection imma du am ci Sénégal wala suy am dina am ci jafe-jafe joo xam ne àdduna yëpp na ci teg bëtam loolu ñun ñoo ko wax loolu ban rapport lu am ak cérémonie d'investiture bu ñuy def tey jii kon loolu tappale la lañuy ñuy essayer ci suuf nag mooy gëmloo àdduna bi yëpp nit ñi ay terroriste lañ te moom Macky Sall nga xam ne bis bu ne mu wax weddi boppam mag moo xam ne day fooy xelam jàpp ni Sénégalais yi dañuy nelaw bis mu ne mu wax weddi boppam ndax du ñu wax dëgg ngeen jégal mu ci kàddu gi politique yóbbu na leen foo xam ne du ñu wax dëgg suba duñ ko wax ngoon sos complot magum jëm mun a taxaw xool nit ñi ci biir bët xam ni li muy wax du dëgg mu koy wax loolu moo ne ci ñoom ndax moom moo wër àdduna bi yépp ne ay terroriste ñoo songu senegal senegal yi doon manifester nee na ñoo ñëpp ay terroriste lañu am ñu ci rax yor ay ngàndaay songu alkaati du loolu la wax fii mu dem ci tubaab yi wax ko yónni ministre des affaires étrangères mu dem wax ko ci tubaab yi moom ci boppam mu dellu si ñëw fii bi muy def discours am wax ko ñu teg ci ñaari fan mu dem def interview defe naa ci journal Le Monde baa mu waat ko barki démb bu muy dajale ay nitam ci palais ne moom Macky Sall lenn rek moo ko mënoon tax a def candidature lenn rek moo mënoon tax mu déposer candidature am pour troisième mandat mooy su doon réew mi jànkoonte na ak ay risques ay jafe-jafe ay menaces yoo xam ne lu mel ni terrorisme waaw Macky Sall mi ne barki démb ay terroristes ñoo nekk ci réew mi Macky Sall moom moo ñëwaat taxaw ci kanam Sénégalais yi ne terroriste amu fi moo tax moom déposé wul candidature am dafa di ay nit yoo xam ne bu leen bu ngeen di topp seeni wax di ngeen xam ne ñu leen wax dëgg bëccëg duñ leen wax dëgg guddi. loolu nag moo feeñ ci communiqué gouverneur mooy ay terroriste lañ ñun Pastef fi ñu bëgg a jëmale réew mi mooy taal ko fi ñu jëmale bëgg réew mi mooy euh, foqati réew euh, nguur gi par la force ma bëggoon nag waxtaan ak yéen ci lu gàtt mbokk yi mënuma ñaari fan yu ne ma génn wax moo tax suñuy waxtaan dañuy bëgg waxtaan bi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax dañuy bëgg ngeen dégluñu ak xel bañ a topp mbumbaay bi ndax dañuy saral di gis ni bu ñu defee suñuy sotti ba pare li bari wala li gën di gën a fës ci internet bi mooy xool leen nombre de vues du moroomu gaa yi nangam nag naam am nombre de vie yu bari baax la te lu ne fàng la jarul sax commenté ndax kuy homme politique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 haine bi dafa dem ba Macky Sall da koo transposé sama njaboot man sama doom barki dem da doon def baccalauréat yàlla def na amut ñu ciy sant yàlla du ma ne lii moo ko tere am de waaye bokkoon na ci li ko sonal ndax xale bu toll ci war a def examen ñu tëj sa kër boo dee génn dañ lay fuye fuye sa oto toog na lu mat ay fani fani fan ci fekk baccalauréat bi jege na ñu tëj fii bañ ne kenn du génn ci sama kër ba mënul dem jàngi su dul woon waa école am ñu jóg bloqué cours yi ne tant que bu Sonko ñëwul jàng si duñ ko duñu duñu bàyyi mbir mi peut-être duñ ko doon bàyyi mu dem préparer examen fitna googu nga teg ko ab xale buy def examen ci jamono jooju moom ana njabootam ndax Amadou Sall dafa gën sama doom man ma ngay yéeg avion di jàdd fii di dem fële di dugg ci banlieue bi naan day dem recruter ay nervi lu ko neex mu ngi koy def ci réew mi est-ce que moom dafa gën sama doom te lépp nag ci alalu réew mi lañ koy defee jamono jooju ana soxnaam mu dox ay soxlaam man ñu bëgguma ma koo tere sama famille démb ñeenti fan mi ngi ni amuñu wifi ci kër gi démb waa Free ñu woo leen ñu ñëw ñu téye leen fële commissaire bi ne duñu dugg ci sama kër pour ñëw def réseau bi daloon nañu keroog ci plombier bi dal nañu ci maçon dal nañu ci ku ne ñeen du ñu dugg ci kër gi pour ñëw réparer ngeen jàpp ni loolu jaadu na bu ñëw ñu wootee ñu ne leen dem leen comme bañ leen ngeen dugg ñu ne ñu vérifier leen li vérifier bi ñu vérifier dañoo dem ba ci biti gis ni ndekete fil bi câble bi dañ koo dagg ak ak si wala paaka xam loolu sabotage la pression yoobu ak fit boobu nga teg ko sama famille loolu su dul en lan la doon koo xam ne bu ñu tuddee turu Ousmane Sonko sa kanam sax ngay bëgg a wàccu waaye gis nga en du lor ke nga ayir foo gis kuy dund en rek moom la en nga di lor moom lay détruire ñun ñu ngi sant yàlla ñaareelu sentiment boo xam ne Macky Sall nga koy dund te mu nar a àndil Sénégal jafe-jafe yu rëy mooy li tubaab di wax orgueil mooy rëy dem ba xam ni mbir mi jeex na waaye ñëg jàpp la nga jàpp ni boo tegee mbir ci suuf doxal jàmm dalal réew mi day mel ni dañ dangaa faible ci kanamu nit ñi moom noonu la ko jàppee rëy muy ñaareel bi ñetteel gi mooy ragal ragal lan mooy xew gannaaw bu jógee fii te li ko andi yépp mooy ni mu ñor yore réew mi ci fukki fan ak eh, fukki ak ñaar yi weesu ñu jox lam réew ne doxalal yoon doxalal dëgg nga jël ànd ceeg coxar goo xam ne ñépp seede nañ ko di fitnaal Sénégalais yi di dal ci kaw Sénégalais yi di gaañ Sénégalais yi di tëj Sénégalais yi ku ne ànduma ak yow nga faagaagal te fàtte ni nguur dafa am bakkan te yàllaa koy joxe tey war ngaa jóge ci nguur gi nelawatoo lekkatoo jàpp ni mun nga imposer Sénégalais kan moo la war a remplacer lii lépp mënoon na ko moytu waaye ànd ak lii lépp nag nun dañoo waxoon ni lu may wax keroog ci France 24 dafa ne ñun mën nañoo baale te baale nañu lépp lu waay def teg ko si teg ko si suñu kaw ñun personnellement baale nañ ko ndax nun dañoo am roy ay royukaay te bi ci jiitu te am solo mooy yonent bi nga xam ne moom lañu gëm ñun nit def na ko lu ne nit fay na nit pour ñu rey najaayam di Hamza xotti dënn bi génne xëtër bi jox ko ko mu mu koy yëy nii moom mu teg ci bëtam loolu lan moo ko gën a métti te keroog bi mu gañee ba ubbi màkka dafa ne baal naa kooku ak jabaram Abu Sufyaan ak Hindi baal naa leen waaye yemuma ci baal leen sax waaye ku dugg seen kër sax làqu fa jéggal nañ la parce que dafa am fu nit di toll ci histoire da ngay def preuve de dépassement bu xeex jotee ñu bëgg ñoo faagaagal kenn dàq ñoo xeex waaye bu ñu yàlla dénkoon réew mi Sénégalais yi am na leneen lu ñuy xaar ci ñun lu dul ay fayante mooy naka lañuy def ba seeni problème yi ñuy dund ci paj mi ci xëyu ndaw ñi ci ci ci ci euh, coono jigéen ñi ci euh, njàng mi ci tali yi ci courant bi ci dund gu seer gi ci xale yi jël gaal di dem naka la ñuy def ba ut ay pexe ci loolu loolu la Sénégalais yi di xaar ci ku ñu fal erreur yi mu def moom ñun duñ ko def mooy ñu fal la bi nga toogee premier mandat salaamaaleykum waaleykum salaam yaa ngi xalaat troisième mandat ba tax nga ne ku yëngatu rek ma faagaagal ñun du ñu def erreur yooyu kon baale nañu. bu ko neexee mu gëm bu ko neexee mu bañ a gëm ndax ñoom li ñuy def ñoom seeni politiciens classiques yooyu di naxanteeg ñu naan naxal ba jekku bu ko defee nga def li les la les promesses d'engagement que ceux qui qui croient ñun duñu xeetu nit kooku ñun jombale nañ suñu bopp wax loo xam ne Sénégal yëpp dégg nañu àdduna yëpp dégg nañu ñu ñëwaat di def safaan wax amul lu ko jar ci àdduna waaye baale googu dañ ko tënkoon ci app mooy ki ngay baal ci kaw mu tuub ci kaw mu tuub te bokk na ci sartu tuub gannaaw boo rëccoo li nga def nga rëcc ko bokk na ci ay sartu tuub mooy nga bàyyi ko bés bi nga ko tuubee nga bàyyi ko définitivement waaye bu dee moom dafa fas yéene juróom ñaari weer yi ko desee ci réew mi mu ne lii kàttanam yépp da koy jël pour faagagal Ousmane Sonko essayé xool nu mu koy dugalee kaso essayé xool nu mu koy tere nekk candidat wallahi maa ngi koy waat fii ma toog nii ci àjjuma ji lañu desee ci dund ñun du mbirum benn fan du mbirum une semaine du mbirum cinq lañu desee ci dund dinañ ko jëriñoo dinañ ko jëfandikoo ñun ak ñi ànd ak ñun ñépp nag ba teg ko lu toll ni lim ñu teg wala lu ko raw parce que yaram benn la foo domp mu metti dañuy wax ni nit balaa ngay xam lu jaadoog lu jaaduwut laajal sa bopp benn laaj mooy lii ma bëgg a teg kële est-ce que suñ ma ko tegoon dina neex ci man tànk nit yeggoo foofu rek ma neex defal te foofu la Macky Sall nekkoon malheureusement onze ans yi weesu jàpp na ni moom ak njabootam ñoo gën luy dund ci senegal mun na teg nit ñi lu ko neex ba pare moom mu nekk ci mun naa daatoon loolu mënul nekk géej naa ko fi ma toll nii bu deltuwul gannaaw xam ni li mu bëgg munut ne man mënumaa faagaagal ndax man sama carrière politik c'est intact réewum Sénégal kenn mënul wax ëllëgu réewum Sénégal te te génn ci Ousmane Sonko ak Pastef loolu mënul ne moom nag carrière politique weesu na ab page bu ñu tourné la kon na delloo si xelam noonu ma ko waxee ci moom laa koy waxee ci ñeneen ak ñeneen te dinaa ci ñëw dama leen ne Macky Sall bàyyiwul liy firnde ni bàyyiwul gis ngeen nomination yi mu def barki démb ci magistrature bi Cissé si Cissé Fall mi nga xam ne moo dem cour d'appel ñu sas ko moom ne ko fexeel ba condamné Ousmane Sonko lu ëpp ñetti weer mu dem bind ay fen yu leer nañ ngeen jéggal ma ci kàddu bi ci décision bi dem ba ne samay avocat ña nga woon ci saal ba Juan Branco bi nga xam ne mu nga Paris nee na ma nga woon ca saal ba ak yeneen ak yeneen jël na ko léegi moom la yóbbu def ko président tribunal grande instance de Dakar am na lu muy waajal ci fan yi ma teel ko yëgal nag am na lu ñuy waajal te gëm naa ni bu ñu paree examen xale yi ci loolu la jublu Ousmane Gueye mi nga xam ne moom lañ demoon jëli ci cabinet Victorine Ndeye faxas ko andi ko mu mottali Cissé Fall pour ñu mun a am majorité moom la ñu def léegi secrétaire général cour d'appel non seulement ay récompense la ba ci ndaw si sant ndaw mi nga xam ne beneen procès bi moom la ñu boole woon ak euh, Issa Ndiaye nga xam ne moom lañ ko booleel pour am majorité ñoom it moom it defal nañ ko promotion yóbbu cour d'appel ak ñu yóbbu cour de cassation pour préparer lii ñëw waaye dama leen yàgg wax lenn problème mu Ousmane Sonko du problème mu justice néew ma gëw ma Sénégal de am na ci ñu baax am na ci ñu jub am na ci ñu def seen liggéey te gëm naa ni bari nañu lool waaye am na ci ñoo xam ne c'est des corrompus ndax corruption dafa bari forme dem jël la jox la ay responsabilité ne la defal li ñu joxal la promotion loolu corruption la ak yeneen yoo xam ne làqu na ci suuf yoo xam ne mën na ci bañ a sori waaye sénégalais yi xam nañ procureur yi moom tuddatuma leen ñoo xam ne tey suñu appliqué woon yoon waratuñu woon nekk ci justice bi suñu problème du fajoo ci justice wax naa leen keroog ni fi mu toll nii thème bi je éligible mooy fi mu toll nii instant bi ñuy wax nii man candidat la ndax premier dossier bi donte corrompre nañu ay juge ba ñu wax li ñu wax samay avocat nee nañ dañuy dem cour de cassation ma bàyyi la ñuy def seen liggéey def nañu seen mémoire boo xam ne cent vingt-huit pages wala cent trente bañ ko def pare dama jël ay samay naataango yoo xam ne ay magistrat dañ mën leen xool leen bañ ko xoolee pare dañ ne gisuñu fan la cour de cassation mun a jaar ba du kase lii ndax ay vices de procédure yi ci nekk waxuma la sax leneen lu ñuy tudd waaye yéen xam ngeen li xew ci justice cour de cassation bi ñu commencé ñoom ba léegi da ngay am dossier béton ba ñëpp ne dossier bi gisuñu fu ñuy jaar seen yoon newu ci bu Macky Sall jaar ak ñoom fu muy jaar ñoom ñu ñëw wax lu leen neex waaye candidat laa ci dossier boobu ba tey ndax dossier bi jeexagul boo demee ci premier dossier bi booboo gën a neexati ndax nee nañ dañoo condamné par contumace contumace nag mooy saa su ma jógee man ne leen maa ngi nii jugement boobu anéantir na jeex na ñoom bu ñëwoon jël si ma tey jugement boobu anéantir na waaye nag li ñuy waajal dama bëgg ñun ñu préparer ko moo tax ma wax ak yéen ci anam googu dara wa ñoo bett bu dee Macky Sall démb ak barki démb bi nga xam ne moo yoroon nguur gi téye ko ci loxoom lañu mënaluloon dara du makki Sall tey jii nga xam ne ayam jeex na fi mu bokk ci boppam sax muy ñi mu ànd ak mënatul am kilifteef ci ñoom du makki Sall boobu moo ñuy mën a xokkutal ñun waaye nañu fagaru rek waajal moo tax nag ma bëgg leen teel a artu ne leen wala ma teel leen sensibiliser yéen neleen am na nag piège yoo xam ñu ngi ciy tàbbal te ñu ngi seetaan loolu mooy yan piège ñu bari ci Sénégalais yi dañ naan tànk jàppuñu Ousmane Sonko yóbbu kaso garaawul jarut xeex mais Ousmane Sonko mi ngi ci kaso ci lu tegul ci yoon. weer ak genn wàll ngi nii loolu tuutiwul de depuis le vingt huit mai ba tey la quatorze juillet weer ak genn wàll ci coobari Macky sal moom dong nee na Ousmane Sonko du génn du dem doxi soxlaam du dem nemmeeku Sénégalais yi du dem siège dajale ay nitam du def investiture ci coobare Macky Sall moom dong nee na Ousmane Sonko maire de Ziguinchor la waaye du dem Ziguinchor def liggéeyam ba tey jii damay obligé dagg billet avion samay collaborateur jël avion ñëw ndakaaru joxe dossier yi fële ñu àndil ma ko ma mën a signé ñu génnewaat ñu jëlaat seen avion dem Ziguinchor ci coobare Macky Sall moom dong dong dong waa lii sudul kaso lan mooy kaso mu am nag sénégalais yu jàpp ni defe naa loolu lu normal la loolu ba kañ lay durer est-ce que dañ ko war a nangu parce que nag benn ci suñuy problème ñun mooy depuis bi ñu commencé jàmmarloog Macky Sall ba léegi dañoo nekk ci position défensive mooy dañuy toog ba Macky Sall songuñu ñu ne jàpp na Ousmane wala de jël nañ décision justice bi ñu génn il faut léegi ñu nekk ci position offensive loolu nag il faut que mentalité yi avancé il faut que ñu xam ni bu ñuy teg yenn yi ñu koy nangu mooy jox Macky Sall fit mu gën a mun a teg ay jéego ba kañ lañuy nangu loolu Ousmane Sonko nit la di citoyen di père de famille di maire di chef de parti di candidat à une élection présidentielle kon loolu premier piège bi bu dee dañuy toog rek naan dañuy xaar ba ñu jàpp ko mën nañ ne duñ ko jàpp waaye nañ ko tëj ci beneen façon ba kañ ñaareel piège bi nga xam ni il faut ñu génn ci mooy ñu bari dañ naan soo seetee Sénégal wax ji benn la Sonko day nekk candidat ñenn ñi jàpp nañ ni tant que néew ñu Sonko du candidat waruñoo yëngatu loolu conseil constitutionnel rek moo ko mën a wax te janvier la koy wax janvier la koy wax kon est-ce que dañuy toog fi ak janvier di seetaan ñoom ñu ñu continuer seeni pexe. fi ne nii ña nga ci seeni pexe diggante Antoine Diome ak Ismaïla Madior Fall ak seeni procureur pour jaar ci ay yoon yoo xam ne kenn du ko yëg pour génne sama tur ci liste électorale bi est-ce que xam ngeen loolu moo tax xeex bi tey lañ koy xeex te nañ ko ñeme benn yoon parce que nag li ñu daj ba egsi fii suñu toogee nag di sàggan ba bàyyi ma Sall mu def lu ko neex nañu xam ni war nañu suñu bopp war nañu réew mi war nañu àdduna bi waaye war nañu surtout Sénégal yi nga xam ne gëmoon nañu projet bi ba dem xeex ba ñu saat leen ci ñii gaañ nañu ci gaañ yu métti ñii ñu nga ca kaso ba dama ne ci amul amul luñ fi war a ragal te gaaral naa leen garantir naa leen ni fii amul lu fi nit di ragal ndax xeex bi ñu mujjee xeex metti woon na trop de diggante la premier ba le cinq juin waaye ndam giñ ci am moo andi lii lépp est-ce que xam ngeen ni seen xeex boobu moo xam moo tax Macky Sall génn ci troisième candidature bi xam ngeen ko est-ce que xam ngeen loolu kon xeex gi neenut dañ ko war a mottali rek est-ce que xam ngeen ni xeex googu ñu xeex moo tax tey milice dootu leen ko gis senegal ay nervi yuy génn yekk ci ay pick-up di tiire dootu leen ko gis ñoom ñëpp daw nañu ñi ñi nga Gàmbi ñi nga Guinée Bissau am na ci ñoo xam ne jokkoo nañoo ak ñun enregistrement yi ñu ngi ko téye wax nañu mbir mi nu mu doxee fan lañ ko préparé ñan ñoo sumb mbir parce que dañ leen laaj leen delloo leen seen arme ñu ne suñu arme parce que lii mooy suñu sécurité daal di daw génn ci réew mi am na kenn kuñ ci jàppoon waaye bi ci journaliste Pape Alé ñaa junjee ci ëllëg sa la ñu xëy bàyyi kon milice dootu fi am alkaati yi di police di gendarmerie doore ko ci Moussa Fall ak Bokar Yàgg ba ci suuf kenn dootu ci fi am sañ-sañu fii Sénégal joxe ordre alkaati yi ne leen dem leen tiire ci Sénégal yi dañ def seen liggéey nag maintien de l'ordre waaye niñ ko doon defee ak ëppal di dóor nit ñi di tiire ci nit ñi di torturer nit ñi loolu jeex na Sénégal lan moo ko andi xeex bi ñu xeex keroog waaye yemuñu foofu mooy topp giñ ko topp ba tey dem nañu déposer CPI tey dem nañu déposer France barki démb rek Juan Branco mu ma woo yónnee ma ay document juge d'instruction premier cabinet tribunal de grande instance wu Paris moo ñu ko jox ne jot na suñu plainte ne ñu nag mottali leen ma telle information la soxla ak tell information pour ñu mën a commencer instruction bi yooyu noonu xeex bi ñu xeex diggante la premier ak le cinq ak ni ñu toppee dossier bi fa ñu war a dem teg suñu tànk yëpp ñu teg ko ba communauté internationale bi yëpp réclamer ko moom ay compte presse étrangère bi yëpp def ci ay reportage ba wane ni moom moo yor ay nervi ñu jaxasoo police loolu moo andi kon gàcce ngàllaama yéen gàcce ngàllaama yéen wane ngeen ni fa suñuy maam ne woon ñoom Lat Joor ñoom si Sitoé ñoom Albouri ñoom Cheikh Amadou Bamba ñoom Alaaji Malik ñoom Maam ñas ñoom Maam Limaamu Laay fa ne woon ci taxaw ak résister fa suñu jigéen ñi ne woon jigéenu ndeer waalo waalo yi wane ngeen ni loolu mi ngi suñu deret ñun jógewu fi wane ngeen ni politiciens yi li ñu bëggoon gëmloo nit ñi ni Sénégal yi gëmul dara Sénégal yi ñemewul lu metti loolu surtout yéen jeunesse wane ngeen ni loolu newu fi moo tax énergie boobu warul jaas énergie boobu la ñu yaakaare ni à partir de deux mille vingt trois à partir de mille vingt quatre énergie boobu lañuy ñuy transformer ci mu doon énergie buy tabax réew mi doon énergie buy génn di xeex waaye énergie buy tabax mi la dans un engagement patriotique et citoyen est-ce que nañ nangu loolu ñu yàqal ñu ko kon bu déglu ñi nga xam ne dañoo bokk ci système bi seen ceeb du tooy ñi naan jàmm nii jàmm nele jàmm dañ koy liggéey dañ koy dox te dañ koy liggéey ni ñu koy doxee mooy ki yor yatam di dóore ki nga xam ne mooy tooñ ngeen jàpp loxoom ne ko sëñ bi arrêté la ku ko ñemewul wax nag bëgg ñoo joxoñ ñun duñ ko nangu kon nañu gën a takk suñu ndigg te xam ni Macky Sall bàyyeegul nañu jàkkaarloog moom jàmmaarloog moom yeggali liggéey bi ma wax nag ni tere nañu événement yi naam ñu bari ñi ngi xaar ñu génn xeex di ngeen am gàcce danañu xeex de waaye bii moom li ma ñaan waa parti bi ñaan ko sympathisant yi ñaan ko képp kuy sénégalais boo xam ne bëgg nga démocratie bëgg nga dëgg sax ci réew mi bañ nga tooñ ak jaay doole li ma leen ñaan mooy nañu teggi suñu tànk cérémonie investiture am nañu tout notre temps pour def ko te bu soobee yàlla nañ ko def waaye li ñu bëgg a woon Sénégal yëpp mooy fitna gi toujours ci benn côté lay jóge suñ ko toppoon suba fitna am ci réew mi ndax li na doon tuuru ci ndakaaru fii ak li li nga xam ne ci ndakaaru lañ leen di fekk kenn attanu ko te mun nañ ko maintenir génn xeex ak ñoom waaye ñaan naa sénégalais yi nañu bàyyi daal di jàpp beneen date pour def suñu investiture ñu ko candidat yëpp di defee parce que du Macky Sall moom moo naan Ousmane Sonko candidat la wala du candidat dinañu matal suñu dossier yëpp def suñu parrainage yëpp ba dem déposer conseil constitutionnel ba xam ndax conseil constitutionnel dina ne candidat la ñoom duñu am nañu droit def suñu investiture te dinañ ko def. waaye pour journée suba bi muy samedi 15 juillet dinañ ko tëbal ba beneen taxul ñu bàyyi nag may ñaan sénégalais yépp nag dama leen ko ñaan mag ak ndaw góor ak jigéen ak ku munti doon ci Sénégal mag leen ñaan nañ ko remplacer lii ma wax nii mu doon message boo xam ne sénégalais bu bëgg jàmm rek na ko def parce que nag li ñuy def nii dañuy dànkaafu dañuy anticiper ngir bañ rek si réew mi dem ci fitna te loolu war na doon yitte sénégalais bu ne ma bëgg nag sénégalais bu ne lii may ñaan na ko sénégalais bu ne def muy message boo xam ne dañ koy yónnee ma ci sal sénégalais yi ne ko d'accorduñu ak ni ngay def d'accorduñu ak lii ngay waaye d'accordu ñu ak jooy jaay doole bii nga nekkee su ñu ne woon dañuy génn manifester am na sénégalais goo xam ne mënu koo def waaye li may wax ñëpp mën nañ koo def ba ci njëkk mooy ëllëg samedi ci guddi ñaan naa sénégalais bu ne ñu def li ñuy wax concert de casserole def nañ ko defaat ko waaye dama bëgg bii nii. te ñu mës a def yépp réussite la alhamdulilah macha allah waaye dama bëgg bii bu dee yële fukk lañ ci amoon bii dama bëgguñu am ci juróom fukk dama bëgguñu ñu ful ko ba àdduna yépp parce que buñ ko defee àdduna yépp da dafa tiim Sénégal fi mu toll nii télévision tubaab yi dinañ ko wane télévision arabe yi dinañ ko wane télévision asiatique yi dinañ ko wane fii Sénégal ñëpp dinañ ko couvrir mu doon message bu am doole boo xam ne message pacifique la grenade tàkkul xeer sànniwuñu ko waaye message bu rëy la ñuy délivrer pour Sénégalais yëpp wax ni Macky Sall lenn rek lañ la ñaan deseluñu la dara jox nañ la ñaari mandat def nga fi lu ne ñu baal la dañoo bëgg nga dem ci jàmm bàyyi réew mi ci jàmm dañoo bëgg nga bañ fee yee ay fitna dañoo bëgg jaay doole gi jeex dañoo bëgg tànn candidat yi jeex ndax du yow yaa ko war a tànn ñun sénégalais ñoo ko war a tànn loolu sénégalais bu ne mën na ko taxaw sa balcon walla sa terrasse wala sa buntu kër wala sa ëtt jël sa casserole jël sa ndam sab ndab daal di tëgg pendant trente minutes diggante vingt heures trente ba vingt une heures loolu la ñu ñaan sénégalais yi kenn defalu ko Ousmane sonk ñun suñu bopp lañ koy defal. message de paix la bataaxal la boo xam ne ñu ngi koy envoyé Macky Sall ak ay ñoonam pour wax leen ni jàmm la bëgg bu leen fi yee fitna yow mi yor sa taxi wala sa camion wala sa kaar njaga wala sa super yow mi yor sa jakarta mën ngaa def sa klaxon yow mi mën a sànni sa pétard sax sànni ko waaye àdduna bi yëpp dégg Sénégal ni sénégalais yi jàmm lañu woo jàmm lañu woo Macky Sall jàmm lañu bëgg mu doxal te dañu bëgg mu bàyyi fitna bi mbirum concert casserole nag déggoon nañ fi lu ne may ñaan sénégalais yi ñu bañ a déglu waxkat yi nga xam ne euh, lu xew ñu jóg ndax daaw bi ñu fexee concert casserole nit ñi dañ ne suñ defee concert casserole day um nawet bi du baax defe naa nawet daaw bi ci nawet yi gën a naat yi ñu mus am la taw na sax ba nit ñi naan ëpp na kon nañu bàyyi superstition yi gi demee noonu lii moyen la rek boo xam ne moyen de communication te jàpp naa ni gëm na yeneen moyen ndax ba léegi moo gën ñu ne génn nañu ba xeex nañ ay nit gaañu nañ ci lii lan moo raw lii ci bëgg jàmm bàyyi nañu loo loo xam ne mënoon na jur fitna tey tey tey ñu remplacer ko loo xam ne mën na communiquer te du jur fitna ma ciy woo sénégalais yépp muy benn ñaareel bi journée demain bi samedi ñaan naa sénégalais yépp ku nekk na nga jël lenn loo xam ne lu xonq la moo xam ab morso boo takk sa loxo la wala simis boo sol la wala mbaxane la wala tubéy ak lu nit mën a am rek mais na kenn ku nekk am lenn lu xonq luy màndargal ni lii Macky Sall yi def àndoo ci te jàmm lañu bëgg ci réew ñetteel bi mooy ci parti bi journée suba bi na doon journée brassard de la liberté mooy lii ma takk nii nga xam ne parti bi da ko lancé woon muy safaanu brassard électronique bi nga xam ne bracelet électronique bi nga xam ne ñu ngi koy expérimenté ci Pastef kese nag dafa mel ni waa Pastef rek lañ koy takkal ci loo xam ne ci ay caaxaan la ñu ne ñun am nañu bracelet boo xam ne mooy bracelet liberté ñu defar ko Sénégal yi macha allah tabaarkalla jëp si parti bi fu nekk ñu koy laaj fi ne nii ay milliers milliers joxe nañ te kenn ku ne boo ci jëndee benn màndargal bu wane ni ànd nga ak nun ci projet waaye ñaar màndargal it buy wane ni jël nga sa contribution joxe ko parti bi pour dooleel parti bi mooy mille francs bi ngay joxe mu doon loo xam ne nag dafa mel ni général lañ ñoom déranger nañ leen ndax soo seetee communiqué gouverneur yemul sax ci manifestation yi dem na ba suñu ndaw yi waa GPS nga xam ne ñu ngi def liggéey bu am solo dem dugg ci marché yi di placer bracelet yi commerçant yi di ko jënd chauffeur si di ko jënd ouvrier di ko jënd loolu lu muy ut ci communiqué gouverneur ba kon suba. mu doon journée spéciale brassard nga xam ne bracelet du moins nga xam ne ci siège yi fépp ci siège parti bi ci marché yi ci gare routière yi na nit ñi dem dem jëli bracelet yi lii nag mooy pour journée ëllëg bi waaye ci fan yi di ñëw ndax duñu nangu makki sal tënkuñu ci li bëgg ci fan yi di ñëw maa ngi jël à témoin Sénégal yi dinañu déposer autorisation de manifester ci quarante six département wu Sénégal dinañ ko def diaspora bi dina ko def te bu boobaa nag avec ou sans autorisation dinañu manifester avec ou sans autorisation dinañu manifester parce que nag lu ëpp tuuru jàmm ñaar a koy dox lii mooy plan d'action bi te dinañ ko gën a leeral mais pour pour ëllëg wax nañ leen ni mu deme ay des dinañ leen ko leeral. ma ñëw nag ak yéen ci fi may tëjee mooy lancer appel woo Sénégalais waaye dama ci cibler ay composantes boo ci njëkk.